dafa bëgg a defar panneau bi nga xamante ne mooy def panneau signalétique dëkkam mu defar devis defar facture ñu defar panneau bi ñu ne dakaar dem dikk fayal Dakar dem dikk fay directeur boo xam da nga war a dem campagne sa dëkk nga ne nañ la defaral ay t-shirt ñu defar t-shirt yi ba pare nga ne dakaar dem dikk na fay Dakar dem dikk fay ba pare ñu livrer la t-shirt yi fa nga dëkk voyage voyage billet d'avion facture billet d'avion benn billet à 35 millions xaw ma 37 millions. donc yooyu li ñu ci am ci ay li ñu ci fekk ci ay données cest à loo ci xuus rek da ngay gën a am lu la naxar parce que kër gi situation yu difficile yi muy dund. nga mën a jël un intermédiaire jox ko un milliard et quelque pendant ce temps boo demee caaro yi nit ñi ci ndox mi la ñuy patauger pour liggéey pendant des années ñi ngeen fi fekk tey les travailleurs sociaux ñuy réclamer ay conditions ñu yokk seen salaire ak yëpp bu ñu ko mënoon dañ koy def loolu lañ leen loolu lañ leen yéene dem na si ba li nga xamante ne tey mooy seen ay coopérative kër gi di leen dagg seen xaalis mais du ko verser coopérative yi ba mu nekk des centaines de millions de dettes ñaari weer yi lañ ci commencé def un calendrier commencé di koy éponger dette fournisseurs yi bi ñu fi ñëwee bi ñu fi ñëwee léegi c'est des centaines de millions ñu ngi ci plus de 500 de dettes fournisseurs yi ay dettes yoo xamante ne ça remonte à 2014 2017 les préjudices nag j'en passe c'est-à-dire que ne Dakar Dem Dikk bu accidenté tooñ daanul fay. semaine passée la ñuy soog a éponger li nga xam ne depuis 2013 moo fi nekkoon si ay dettes et des fois si ay 200000 mille kenn mosu koo fay wala bu ñu ko doon fay newul seen priorité loolu nag lan mooy woon conséquence bi mooy que ni képp koo xam ne dem nga ba nga am raison si Dakar dem di buy 200000 300000 dañ doon xëy rek ñu ñëw bloqué sa compte pour tel dossier mu dem a dem a dem ba nga xam ne kër gi tey jii nii même. solvabilité wala crédibilité bi mu war a am ci banque ya institution financière yi amatu ko parce que boo demee ba nga xamante ne yow boru 200000 300000 lu càggi ne mënoo ko fay mais defoo ko sa priorité alors que de l'autre côté yaa ngi def ay dépenses de prestige yoo xamante ne nii surtout lu ñu woowee subvention fa la ñuy làq lépp lu xew ñu ne def subvention 2 million 3 millions 4 millions ainsi de suite subvention ay la yëwén société buy def bénéfice mais société boo xamante ne yow da ngay perte ngay def fooy jëlee looy subventionné faut se poser la question donc encore une fois on appelle tous les travailleurs de Dakar Dem Dikk si liñ leen waxoon fii bi ñuy jël fonction mooy que ne ñun kër gi si jub rek lañ ko nar a lañ ko nar a gérer parce que ñaan nañ yàlla bu ñu fi jógee ñu xayma ñun aussi li nga xam ne moom lañ fi def jugé ñu nag ndax baax na wala baaxul loolu résultat moo koy def mais li ñuy li ñuy li li ñu leen di woo di leen ci invité mooy on a engagé un chantier mooy redynamiser kër gi bi ñuy soog a ñëw recettes yi difficilement la doon egg vingt cinq millions journalières avec les mêmes ressources on les a poussés jusqu'à quarante huit cinquante millions par jour fekkoon nañ fi yu doy waar parce que kii di raxas chaque jour di nettoyer kër gi di sénégalais comme yéen ak man ñu koy fay fukki junni par weer mu war a xëy 4 heures du matin lu doy waar la ñu def leen prestation de service depuis 2017 ñenn ñi politicien bu ñëw rek fàtte ñoo ñu indi ñeneen. man sama ministre bi mu ne ma prestation yi arrêté ko ma ne ko man sama yaram day daw ñi mënu ma leen arrêté parce que ñoo fi jiit ñi ñu casé ñëpp pour l'essentiel et il faut un travail très sérieux ñooy raxas suñuy bus ñooy nettoyer bureau yi ñu ngi fi depuis des années mais ku ñëw da nga naan ah man ñëw naa damay indi samay nit je mais mets rapidement en CDI je les mets à l'aise ñun toujours par souci de rationaliser li nga xam ne mooy dépense yi yi yi am ci kër gi bi ñu ñëwee euh, ki ñu fi wutu dafa amoon un cabinet il avait je pense sept con sept ou huit conseillers am une dizaine de chargés de mission yoo xam ne kër gee ko doon jël en charge ñun bi ñu ñëwee pour l'essentiel à part benn conseil pour l'essentiel nit ñi fi fekk la ñu jël ne leen kaay leen ngeen conseiller ñu. parce que am na fii ñu bëri ñoo xam ne leen dugaloon ci ay placard wala ay frigo ñu dul jeex des gens très compétents ñoo xam ne xamuñu leen ni daadan ni deef bi ñu ñëwee dañ defaax ñoom ay entretien on a vu leurs états de service amuñu benn manquement seen liggéey directeur lay soob rek mu bëgg a indi ko neex teggi ko teg fa keneen bàyyi la ci kër pendant des années ngay yeeku say avantages yëpp mais amul benn liggéey boo xam ne moom nga amal kër gi ñu leen loolu dañ koy changé ñun bi ñu ñëwee l'organigramme dañ ko tasaare woon pour mën a dugal ay nit ñu recentré waat lépp recentré que sur euh, li nga xam ne moo war a nekk suñu cœur de métier muy exploitation alors forcément mutation yooyu fu muy am am na ñoo xam ne ils faut plus y trouver leur compte parce que li ñu tàmmoon la ñu di leen di wax ne nag kër gi nag moom dina changer waaw parce que fas yéene ñu ko gérer ci ay tappale te ñu leen wax fii nii junj leen ko lu ci nekk dinañ ci génne firnde def nañ ko sax si suuf depuis ce matin yónnee ko à l'autorité fuñ ci war a dem dinañ leen wax ne nañ ci topp benn centime boo xam ne jël nañ ko te kër gi moom ko dinañ ko topp ba mu leer bu ko nit luubalee nag ñu wax ne nit ba mu ko dénkee kër nangam ci Sénégal luubaroon na fa nangami milliards. est-ce que mën ngeen a comprendre ci banque bu ñuy dem négocier rachat wu dette. banque bi surfacturer sa commission wala mu doubler ko bu ko neexee sax parce que banque bi privée la da ngeen di waxaale rek mais au-delà de ça nga fayaat si un milliard et quelque kenn ku ñu woowee apporteur d'affaires donc c'est problématique te li am fii ñun am nañ yaqin ne bari na société yoo xam ne même problème la ñu am donc encore une fois peut pour tëj ñu ngi woowaat les travailleurs de Dakar Dem Dikk di woo ñi nga xamante ne nii tey ñu ngi collecté l'argent de Dakar Dem Dikk ne duñ ko versé di leen wax ne xaalis bi moomuñu ko Dem Dikk moo ko moom te xaalisu Dem Dikk xaalisu Sénégal donc ñu ngi leen di invité à ce qu'ils reviennent à la raison dem def ces versements la donc vraiment yooyu mooy quelques kàddu yi nga xamante ne moom lañ bëggoon na euh, échanger ak l'opinion